xam-xam mi ngi commencé ci ñu sol costume di làkk tubaab et damay wax toujours booy jàng Masalikal Jinaan euh, Sëriñ Tuubaa mu ngi ci naan la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension mais waxi négritude ñu ngi ko askanale sengoo rek euh, ñi nga xamante bañ ko waxee yàggul te pourtant négritude bi yëpp c'était juste benn combat bu ñu doon mené mais au fond il ne menait pas un esprit parce que nit boo ko bëggee defar du du yaram bi c'est l'esprit te li tax livre bi am solo combat bi am solo mooy dañoo nekk ci dynamique boo xamante ni euh, moom laa doon waxtaan ak góor gi léegi ci livre Hariri bi mu mujjee benn Homo Deus di wax la disparition de l'Homo sapiens ñun ñi dañoo war a disparaître lu tax ñu war a disparaître mooy euh, le big data mi ngi ñëw war ñoo remplacer dinañ dem ba nit ñi toll foo xamante ni. sa cerveau la ñuy jéem a def ci benn puce boo reyee nit sax sa soxlaatul ñu lay woo dañu xool heure bu nit ki dee ñu dugal puce bi xool heure boobu sa cerveau lu mu doon def et te nit ñi ñu ngi commencé jox raison ñu jàpp ni l'homo sapiens dafa war a deñ l'homo l'homo deus ñëw l'homo deus mooy nit ki yà nit nit ko yàlla quoi nit ko amee jikko yàlla c'est-à-dire que fi nekk nii ku kenn ku ci nekk ci ñun loo bëgg a wër loo bëgg a set bu njëkk ba da ngay dem ci sëriñ bi mu wax la wala nga dem sa professeur mu wax la mais léegi loo bëgg a wër loo bëgg a seet Google ngay tapé cest di dire que la technologie commence di jouer rôle boo xamante ni euh, mënatuñoo taqalikook moom bokk na ci ñun tafu na ci ñun dans 50 ans 60 ans est-ce que ñu ngi réfléchir fan lañu jëm est-ce que ñu ngi réfléchir ban discours nga mën a tenir sa doom est-ce que quelque part yan message la ñi nga xamante ni am na lu ñu bëgg a yàq ci suñu organisation société ban message fan lañ koy jaar yan yoon yu sew la ñu jaar parce que tout lépp ay canal la maintenant est-ce que canal bi ñuy jaarale seen mbir ñun xam nañ ko est-ce que pare nañu ñun pour réfléchir dans trente ans ñi bëgg a euh, légaliser euh, ay homosexualité wala ay franc-maçonnerie yan yan yan canaux lañu la ñuy utiliser est-ce que ñu ngi ci préparé wu li ñuy def mooy lan dañoo nekk toujours di réagir dañu nekk dans la réaction bu lii al ñëpp jóg mais non day tàmbali ñu koy gis muy dem bu nee tal rek ñëpp yuuxu je pense que day day jar euh, Afrique après 60 ans 60 ans après indépendance xëy na suñu papa ji xeex bu mu doon xeex esprit xeex boobu mën nañu ko garder mais waratuñoo xeexee noonu parce que sinon euh, li muy xeex ba léegi dañ dañu continuer di ko xeex ñun dans 60 ans day xeex day xeex am na fu muy toll il faut que ñu changer mois yi ñu xeexee. mooy ñu xeexe mooy lan ñii lan moo tax ñu jóg parce que qu'ils soient les francs-maçons qu'ils soient les mais duñu duñu du ñu duñu duñu jóg di utiliser ay moyens di utiliser ay ay canal mais ñun yan stratégie la ñu teg pour apporter des réponses sur ça est-ce que dañoo doon war a continuer di ko xeexe nii quand j'ai lu le livre euh, bon Cheikh Omar lu bëri nag du ma d'accord ak moom parce que man xëy na <laughs> bokkuñu éducation ni ñu bindee yaram bi dafa tàng lool ci ci ci bind yi mais en moi damay damay toog ba chàgg ma ne pourtant euh, ñu bëri ñuy jël comme héros pourtant ils ont participer à la destruction même de notre nation ñi bëri ñi nga xamante ni dañ leen waroon def ci kaw kenn xamu leen Sénégal boo xoolee boo doon def histoire Sénégal politicien rek ngay lim te gisuma ci na ma yàlla jégal bon ñëpp baax nañ mais gisuma ci ku baax baax koo xamante ni ñaan naa yàlla nga jiitama ma julli à toute sincérité et pourtant histoire Sénégal ñooñ dëng ci gis ñi xeex ñi ñi bañ ñi nga xamante ni xëy na xamoon nañu esprit parce que quand am nañu habitude respecter sëriñ si ci lépp mais yenn saa sëriñ yi dugg ci loo xamante ni sax duñ ko comprendre parce que pour man tout est tout est tout est tout est immatériel te jot na ñu commencé dans ces ci publication yi demee ni di xool dans vingt ans dans trente ans ban Sénégal la ñu bëgg ndaxte ñun ñi ñëpp yar bi ñu amoon juddu dem daara man defuma ko sama doom keneen def ko doomam keneen def ko doomam à partir de ce day am toujours luy wàññeeku ci qualité am loo xamante ne day yokk ci quantité d'information boo xamante ne yow mënatu koo contrôler ku ci nekk ci ñun ki lay contrôler dootul dootul dootul sa papa dootul sa yaay dootul système bi une technologie moo lay contrôler te technologie boobu di la contrôler xamoo fi mu la jëmee et donc qu'il soit pour man franc-maçonnerie euh, euh, euh, euh, euh homosexualité tout ce qu'on lépp lu ñu lutte wu parce que nit ñi lu ñu jàpp rek mooy comme homo deus parce que livre bi moo ko livre Cheikh Omar laa taqale woon parce que ñoom ñaar xëy na kii dafa nekk dans le futur kii dañuy wax le passé de notre de notre république mais le passé c'est extrêmement important mais dañ ko war a def fondement pour réfléchir ci suba ndax ëllëg ku ci nekk yaa ngi xool ni sa doom amoo ci moom benn contrôle ndaxte ku ci nekk xale bu téye portable soxlaatul ndey soxlaatul soxlaatul baay soxlaatul kenn bu bëggee jënd sax léegi ci bu lay jëndee dina dem ba léegi portable day dem ba day assister lom pour euh, euh, assister sa fin ndax bu ñu demee ba léegi nit kuy def politique léegi soxlaatoo sax di meeting jëlal big data bi jéem a big data bi jéem a xool nan nga ba xam ñii lan la ñu bëgg léegi lépp lu ñu bëgg rek. mi ngi ci mel technologie boo xamante ni contrôlé wuñ ko échappé nañu te pour man yooyu noonu dafa jar ñu commencé di def pause à partir de des livres comme ça des fondements commencé di liir les signes gënatuñ ñoo yow jàpp nañ ñu jaam coloniser nañu def nañu leen neex mais pour man gënatuñ ñoo yow gënatuñ ñoo li manqué mooy benn affaire gom jéem a comprendre bàyyi rek xeexu matériel bi comprendre li matériel xeex bi nga xamante ni moom dina jàll seeni message parce que malheureusement euh, euh, homme politique yu ñu am gëw mën dinañ comprendre euh, fi ñu nekk ni xeex xeex bi ni ñu war a mënee léegi xeex bi dafa toll foo xamante ni dafa laaj xam-xam bu bu wér xam-xam bu bu il faut avoir l'intelligence de la vie xaw ma nu mu koy waxee ci wolof il faut avoir l'intelligence de la vie cest dire que nit ki bu lay jox sax war nga xam ne li mu lay jox am na lu tax. am na lu tax mu la koy jox mais ñun on accepte y des gens qui nous aident appuient tout tout mais pour lan ñee am seen i dëkk ñu ñàkk ñi mënul ñi pauvre mais yow mu lay jox donc pour man daal bu ñu comprendre l'esprit de la chose dinañ xam ni euh, seeni combat dafa dafa commencer te dañ naan l'Afrique et l'avenir mais euh, avenir bi ñu wax Afrique du ñuy wax les Africains sont l'avenir il dit que l'Afrique est l'avenir